bëgg la nga ñaaw ci moom njort ne lu lay lor la soo ko waxee xaj Babacar yàlla wallu la ci saa si xaj Babacar. jërëjëf Oustaz Mor RFM matin 7h40. RFM matin RFM matin. émission bi yee waa Sénégal. ñu dalal sunu gan Senghane Senghor salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Babacar maa ngi lay nuyu bu baax di la sant. di la dalal jàmm di nuyu Mouhamed Alioune Ba mi ñu àndal ci waxtaan wi euh, ndax Georges moom ma nga ci. 15 août am jeexagul 55 euh, Or yow ci RADDHO nga bokk di benn ci mbootaay yi ne ci réew mi tey sàmmal nit ñi seen seen àq yow ca RADDHO yaa fay chargé des affaires juridiques et de la protection euh, fan yi yéen a ngi yëkkati kàddu ci ñi ñu tey ci kaso bi te doon ay politiciens ñenn ñi def grève de la faim ko ci mel ni Ousmane Sonko yan xabaat ngeen am ci moom sax moom moomu njiital Pastef ga woon nga xam ni. bañ ko tëjee kasoog euh, léegi mu ngi ci grève de la fin googa ñu jëlee ko sax kaso si bi xotaan bañ ko dencoon indi ko ci hôpital principal ngir surveiller ko euh, lu ngeen ci am xibaar ak euh, nu ngeen ko gisee ci suba tey gi. waaw merci jërëjëf sëñ Babacar mu ngi lay nuyu di nuyu Aliou di nuyu auditeurs yi xibaar bi ñu mujj am ci Ousmane Sonko mu ngi jóge ci avocat maître Ciré Clédor li je pense que lettre bi mu bind démb ñëpp gis nañ ko di tirer sonnette d'alarme bi pour que ñu jël ay dispositions ci teel ci kaam démb suba aussi Alioune wax na ko suñ doyen boobu de ko yeneen détenus yu nekk en grève de la fin parce que du Ousmane Sonko rek détenus yu bari aujourd'hui ñu ngi en prison. et jaaxle bi ci famille yi gën a am mooy famille yu bëri mënuñoo accéder ci seen mbokk en tout cas loolu mooy information ñoom yi ñu remonté dañuy demander gis leen mais le plus souvent gis bi dafay jafe ñenn ñi dañ lay wax dama insister lool pour gis ko et souvent bu leen gisee xol bu jeex lañ fay génne loolu moo expliqué d'ailleurs semaine passée organisation droits humains yi nekk fii Sénégal muy RADDHO Ligue sénégalaise Amnesty africa Afrikajom Center ak article 19 ñu bokk def benn conférence de presse pour demander gouvernement bi mu xoolaat un doxalinam ci mbiri àq ak yelleef doomu aadama parce que lu waay mënti wax dina reconnaître ne ak ak yelleef doomu aadama xaw na sooxe ci niñ koy doxalee ci dëkk bi ci côté yëpp nag boo jëlee côté manifestation boo jëlee côté arrestation parce que arrestation yi li ci gën a gêné mooy arrestation yi dafa mel ni ci benn camp rek la deuxièmement dafa am ñu nekk en prison aujourd'hui te sénégalais yëpp xam ne soit li ñu def normalement waru leen yóbbu en prison ou bien bu leen yóbboo en prison aussi waruñ fa def benn temps bu yàgg bi ci ci ci prison simplement parce que dañoo criminaliser seen dossier mooy dañ ko yóbbu instruction ce qui veut dire que mën nañ fa def ay at te loolu jëmmalul réew yi droit. est-ce que dem ngeen yéen euh, seetal seen bopp euh, lu xew euh, ci domaine en tout cas ci dossier Ousmane Sonko bi yéen en tant que défense des défenseurs des droits humains est-ce que dem ngeen seeti ko. est-ce que dem nañ seeti Ousmane Sonko wala seet nañ li ci dossier ko seeti ko non demuñ seeti Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko bi ñu ko arrêté juste après la commencé def grève de la faim ñi ko gën a jege information yi ñu joxe woon tout au mooy seeti ko dafa jafe woon je crois dégg naa ministre de la justice mu ne am na benn jour buñ ko aménagé loon boo xam am na ñu mu ñu seeti ko mais depuis lors euh, mu ngi baggante entre ak hôpital c'est un peu peut-être loolu mooy jafe-jafe bi et que fi mu ne mel na ni avocat am yi rek ñoo am accès ci moom. léegi lu ngeen bëgg état bi def ak justice ci mbiru ku ñu téye kaso muy grève de la fin en fait grève de la faim il baax na ñu fàttali ne arme bu ñu nekk kaso yàgg di utiliser la. parce que forme aussi de pression la ci gouvernement. c'est normal il faut ñu reconnaître ko normalité bi ki koy def moom moo koy apprécier mais. liñ mën a def sukkandiku ci taarix mooy mën nañu wax nit ñi ne ay personnalité yu ñu xam ci àdduna Nelson Mandela def na ko fii ci Sénégal ku mel ni professeur Iba Der def na ko fii ku mel ni Mahatma Gandhi def na ko et ainsi de suite. mais est-ce que yéen euh, avec le recul aussi mun nañ euh, mënuñu peut-être essayer de comprendre un peu ci yëf yi est-ce que jàpp nga nii Euh, moyen de pression boobu tamit euh, du moyen de pression peut bu yomb si vraiment tey jii euh, bépp prisonnier bu ñu yóbbu peut-être Rebeuss walla feneen bu defoon la même chose est-ce que jàpp nga ni même c'est c'est normal malgré tout moyen de pression boobu. Aliou il faut ñu déparer ci benn principe. mooy ñi ñu jàpp noonu yëpp li charge yi di dix dix dix présomption d'innocence dafa tax ñu war a jàpp ne. bi ba juge di dogal ne ñoo ko def defuñ dara loolu mooy benn premier principe bi ñu war a xool deuxième chose bi mooy ñi ci ëpp ci ñuñ jàpp texte yi ñu visé ba jàppaleen ñun xam nañ ko boo demee gëstu ko parce que dañuy wax constamment ak seeni avocat li dalee article cinquante cinq ba cent la ou bien article cent cinquante cinq bi nga xam seen confrères yu bëri moom lañ leen toppee d'ailleurs je crois am na ci ñu nekk ba léegi ci gris ak article 139 bu code de procédure pénale boo boolee article yooyu yëpp ñun depuis des années dañuy wax ne article yooyu waruñ am dans une démocratie pourquoi parce que article yoo xam ne la daanaka buñ la ci toppee say moyen de defence du bari buñ la ci toppee bu nguur gi nammee nga dem kaso da ngay dem kaso bu nammee nga toog fa da nga fay toog diir bi nguur bi bëgg. mais en même temps aussi euh, est-ce que yenn euh, ci code pénal bi c'est aménagé affaire terrorisme est-ce que yenn actes yi ñuy gis euh, isam Euh, ci Sénégal mënul euh, mënuñu ko comprendre peut-être euh, parquet bi nu muy viser yenn yenn yenn articles yi dans la mesure où par exemple gis nañ fi ay attentat wala yeneen yoo xamante ni mun na tax nguur gi daanu on l'a vu ici. ñun défendre wuñ kenn koo xam ne da nga poser un acte criminel. je préfère man moo wax acte criminel parce que appréciation bu xaw a politique mi ngi ci mi ngi ci code pénal bi. mu ngi ci code pénal bi mais sëñ Senghor mënoo wax terrorisme appréciation politique la ça quand même vous pouvez pas le dire. si désolé. si parce que bu ñu apprécier acte de terrorisme ça veut que on oriente ci benn groupe soit groupe islamique groupe politique groupe nangam. demal nga xool loolu kese mooy euh, définition bi. Ah, monsieur Senghor quand xaaral définition terrorisme bi mu amee sax ñu juboo ci yàggul. c'est c'est pourquoi boo gëstoo dans l'histoire da ngay xam internationalement yàgguñoo am definition parce que am na moo yuñ dajale woon bëgg koo tuddee définition. américain franchement vous cherchez loin là. Ah, américains yi dañuy bañ. israéliens yi dañuy bañ et ainsi de suite. donc notion donc notion boo xam ne juboowuñ ci la. nañ ñëwaat ci suñu code pénal kon. maintenant suñu code pénal aussi du bible du alxuraan. Ah, parce que non laisse euh, laisse laisse moi terminer parce que. réew noonu lay doxee fois ñu dugal texte boo xam ne ci code yi du texte ba gën et ñun suñ mission mooy souvent bu ñu commencé appliquer tex bi wala sax bu ñu xamee texte bi bi ñu ko appliquer ci tel réew li ak li moo doon solution bi ñu teel a artu wax ne ah texte bi léegi question simple attentat yi attentat yi et pour euh. xaaral boobu ñu dugal ci ci terrorisme nañ jël texte ñu teg fële yaraax bii su boobu ñu jël ñaari cocktail molotov mm. ah sànni ko mu kalaate ñaari eh, nit ay jigéen lakk ci ba jeex. léegi lool loolu loolu lu mu doon. ñooñu incendie criminel la. Hmm, c'est pas un attentat ah, mën na doon mën nañ ko tuddee sax attentat non criminel je préfère. l'avenir nous dira ndax c'est c'est terroriste ou mais ñooñu li ñuy laaj ci ñoom mooy na leen état bi wër def li war ci ñoom. parce que attention ñun défendruñ kenn koo xam ne da nga poser acte criminel par contre. détenus yi nekk dans les prisons te nekk ay détenus d'opinion te bari aussi parce que xam nañ ko parce que ñun. léegi weekend bële ñi ñu jàpp ñu yor ay pont ak matériel bu ñu waroon defaree ay yëf yuy kalaate loolu moom nu ngeen ko gisee yéen. waa loolu dossier dossier accusation bi la nañu continuer enquête yi suivant aussi les formes ak engagements yi Sénégal am. biñ nañu kii moo def lii kii moo def lii kii moo def lii ñi ci loi war a tegu seen ko ñu teg leen. loolu moo ci université yi naka lañ ko mën a tuddee. mooy université bi ñu lakk lu abominable la même chose nañu wër ñi ko def ba gis ne ñii ñoo ko def ñii mooy commanditaires yi ñu teg li war ci ñoom parce que loolu ay incendie criminel la. léegi ku ne ku ne ku ne xale yi ñëw leen ndakaar ñu dem pale génnee président bi euh, daggate ko comme ni ñu defoon Samuel Doe président libéral loolu nu ngeen ko gisee. Babacar xam nga loolu wax ko moo gën a yomb def ko. déedéet waa d'accord eh, eh, laisse-moi terminer nu ngeen ko gisee yéen nu ngeen ko gisee yéen. xaaral xaaral xaaral parce que ñun démb fii la ñu fekk ak barke démb président Abdoulaye Wade bi mooy wax fii ne ku leen dóor fayu leen ut leen ay chaînes yu vélo ut leen leneen fii la ñu fekk. mais différence am na. attends différence am na. Euh, lan mooy différence entre Wade wax ko la Macky wax ko taxul mu dagan. waaw wax na ko mais defu defu ko. oui. kan moo ko def. par exemple on a vu par exemple leader de euh, Ousmane Sonko wax na am na ay nit ñoo xamante ni appartenir naan ci moom euh, di déposer des actes. no moom ouais. non Aliou attention attention loolu mën ko wax parce que man mënuma xuus ba fi ngay xuus parce que hmm. man déggaguma benn dossier buñ jugé pour ne diw moo def parce que ñun suñ mission aussi du juger et ça il est bon que ñu leeral ko dégg naa même ñu naan ñiy def droit de l'homme tëddeewuñ njaaxaanaay ñun suñ mission du tëddee njaaxaanaay suñ mission mooy di contrôler Sénégal engagement yi mu am Nations Unies yi mu am Union africaine yi mu am CEDEAO est-ce que mu ngi koy respecté. te Sénégal mais nekk au milieu aussi jou rôle boobu am na importance. pour ngeen nekkoo au milieu des acteurs bu fekkee ni kii jàng na A jàng na ngeen wax B bu jàngee ngeen wax ngeen mën mën a jouer le rôle de médiateur. justement c'est là où parce que yow journaliste nga yow xam nga ne ñun suñu mission du renvoyer les acteurs dos à dos parce que wax naa ci kii danaa wax ci kële parce que benn opposant loolu mooy loolu euh, njaaxaanaay nag yéen seen tëddee njaaxaanaay moo des. loolu yéen association droit de waxtaan wax dëgg ca la. bañu seen tëddee njaaxaanaay moo des. bañuñ ko parce que. Euh, fii la fii la ñu fii la ñu ñëw taal ay oto RFM sax ci deux mille vingt et un. kenn yëkkatu leen benn baaraam. si yéen pour yéen loolu. normal amul benn mënuma génneel benn communiqué officiel bu association droit de l'homme Sénégal génnee di ñaawlu loolu ak yeneen ak yeneen. ak yeneen sénégalais yuy lott ci yëf yi. vous vous parlez toujours des personne des opposants oui opposant bi tëdd na kaso opposant bi grève de la faim mais jamais l'intérêt général toujours yéen a ngi jàng jëmale ci opposition. Euh, ku bokkul opposition lu lu ko mënti dal garaawul da ngeen koy cof-cofal rek jàll dem c'est ça la vérité. Euh, rassuré nañu parce que li ngay wax ni ñiy nekk au pouvoir mooy souvent liñ ñuy reproché mais bu ñu ñëwee. dans l'opposition ñun dañuy nekk pouvoir suñu yoon suñu yoon newul ci ñoom. non attends si suñu yoon newul ci ñoom. généralement on on observe xam nga xam nga aussi. waxtaan wax dëgg ci la bay bayal beeg ay naayis naayisel yeeg association droit de l'homme yi yaa ngi doon wax sànq ne sunu code pénal du bible alxuraan association droit de l'homme yi du ngeen alxuraan du ngeen bible seen liggéey ak seen taxawaay am na ndëngte. sa appréciation la et baax na sax ñu am par exemple retour ku mel ni yow ak ñeneen. bu ci amee lu ñu war a soppi ñu ah. soppi ko mais. leen benn point na leer. mooy ñun nekkuñ fi pour di wax ci Massamba buñ parce que dañu wax ci moom dañ wax ci war a wax ci ma dem ba li ñu fi nekk di. liggéey mooy kër ministre yi ñu fi taal kër ministre yi ñu fi taaloon lu tax waxu leen ci. mais kër ministre yi ñu fi taal justice def na liggéeyam. parce que am na am na ñu ñu non non non lu tax yéen waxu leen ci. loo bëggoon ñu wax ci. ah ngeen ah, indi ñëw attends attendez. loolu ko yow lañ koy laaj parce que constamment ñun dañ ñuy invité mi ci média yi est ça bu acte bu mel noonu amee ñu posé. ñu mais est ce que jar invité leen yéen comme nu ngeen koy defee communiqué yi euh, communiqué wala wax ci rajo bi indi ñëw ne vous n'êtes pas d'accord si dañ koy def ah, parce que leen ci yooyu non non attends euh, kër kër kër ministre yu ah, bëri ñoom kër Matar Ba ak ñeneen ak ñeneen non non non non non non non non non non non non non non non non non non non c'est comme si ñun dañuy def promotion wala dañuy faral ñuy def violence. Ah, lu tax police policier bi ñu la Parcelles Assainies di ko dóori mool mu tëdd yéen lu tax waxu leen ci. si dañ ciy wax. <laughs> non dégg boobu waxu leen ci waxu leen ci. dégguñu leen no attends nee ma dégguñu ci communiqué mais. bu ngeen waxu leen ci waxu non pour leen di interroger. pourquoi pourquoi bu nit defee grève de la fin nekk ci kaso bi ngeen jël seen initiative génne seen communiqué buñ ñu jàppee policier di ko dóor mool. ba mu xaw a ñàkk bakkanam ngeen ni pat non d'abord communiqué benn génnu fi boo xam ne pour grève de la fin kese la communiqué yi génn ci situation nationale bi lay nekk dans le principe ñun dañuy condamner violence ci côté bu mu mën a jóge alors maintenant particularisme yi souvent yow yaa koy def ñun amuñ problème ah, parce que policiers yi gendarme yi kenn duñu jaxaseeg ñoom policiers yeeg gendarme yi suñuy xarit lañ ñenn ñi ñoo jàngandoo ñii ñoo bokk suñuy jarbaat suñuy rakk suñuy. doom bul bul dawres non non mm-hmm. dawres amu ci c'est ça la réalité loolu moo nekk parce que loolu dooru ko wax donc kenn du dox suñu diggante ak ñoom donc ñun ni ñuy liggéeyee. ay règles la préétablies yoo xam ñun xam nañ ko vraiment ñi ñu koy jàngal nañ ko arrêté. est-ce que c'est nu ngeen mel nii du peut-être du looloo tax tey jii acteurs yi amuñu confiance yéen ah bon moo tax euh, ñu nekk si situation extrême bi euh, finalement nguur gi mënul waxtaan ak kenn peut-être pour essayer de lever le pied. est que tey jii du yéen a seen bopp. non extra excentré wuñ suñ bopp parce que boo nee acteur yi mënuñu wax ak yéen ñu ngi wax ak acteurs yi. parce que ñu ah, ngi wax d'abord mais déglu ñu leen. si parce que dañ leen di jàppee comme déjà des opposants non ça c'est la version aussi du pouvoir. mais ñi ñi fi nekk ñëpp te seen ak ak yelleef ñu jàpp ne salfaañi nañ leen dañuy dem ci organisation yi dañuy discuter ak ñoom dañuy échanger ak ñoom dañu leen di jox situation yi ñu nekk maintenant de l'autre côté ñoom ñoo jàpp xëy na ne ñun bu ñu waxee toujours lu leen compte la ñuy wax et man awma problème ak seen appréciation bi parce que simplement bari na ñu doon am position yooyu bu ñu nekkee pouvoir bu ñu génnee pouvoir ak ñoom bu ñu tasee dañuy mën a toog waxtaan dañuy saluer liggéey bi ñuy def donc niti pouvoir buy apprécier kuy def militant droit de l'homme ne ko da ñuy attaqué te deewoo njaaxaanaay yooyu c'est même je dirais normal lu normal la parce que simplement mooy wone ne xëy na ñun ñu ngi ci yoon ñu ngi def suñu liggéey ñu ngi surveiller ñoom li ñu nekk di def les acteurs tous les acteurs ngeen war a surveiller yan acteur par exemple parce que déjà bu fekkee ni yow euh, peut-être am ngeen un peu plus une fibre bu gën a kii ci opposition bi bon peut mun nañ comprendre un peu cette appréciation mais ku nekk xam na tey ji opposition tey bi mooy nekk euh, suba ci pouvoir bu fekkee nii defu leen liggéey bi war nit ki day ñëw peut-être ci pouvoir bi xëy na euh, nu mu tudd lu mu lu luñ ko waroon wax mu mu mu préparé wu ci balaa mu yes ci nguur gi. mais ah, mais Aliou ma fàttali la ne président Abdoulaye Wade bu mu nekkee opposant ñu jàpp ko ñoom Alioune ñoom Me Amadou Ali Kane ñoom ñoo ko doon fekki ci violon ba pour di ko indil ay lekk ak di ko assister. et loolu c' est arrivé avec président Macky Sall bul fàttee ne président Macky Sall moo doon ñëwal boppam rado réunion temps yi M23 di tase tout le temps ak opposants yi ñuy discuter principal problème bi ñu am mooy engagement yi ñi nekk di def politique. di est-ce di wax opposants yi dëgg tamit. mais bien sur cest dire que ni ngeen bëggee ñu wax opposants yi dëgg amul benn texte bu Sénégal signé booy dem fekk ne opposant war na def nangam amul. fii ki yor responsabilité yi yor doole ji. yor moyens yi il y a des principes universels. principe taxawaay non non non non non non non non non Senghor yow tamit bàyyi li ngay def. jox ma ci benn benn principe universel non non dama ni dama ni wàllu sàmm àq ak yelleefu doomu aadama amul texte amul opposant amul pouvoir ñëpp ci war a tënku am déet. juboo nañ ci loolu d'accord nañ ci. parce que. amul distinction ci côté boobu. mais loolu lañ leen di reproché te mënoo ma andil benn cas boo xam da nga may wax fii def ngeen fi distinction maintenant. ki yor responsabilité yi ki nga xam demee moom la ñuy évaluer natt ko ci nan la appliquer texte yi état du Sénégal la du benn opposant moo tax ñun defuñ fixation ci opposant yi e mën nga leen laaj man souvent je leur dis que rien ne me dit bu ngeen ñëwoon au pouvoir di ngeen tane ñi nekk au pouvoir ci ñun militant droit de l'homme parce que loolu miin nañ ko ñun miin nañ ku ñëw pouvoir jàpp ne ñun dañ la. kon moo tax moo tax ngeen war a garder la distance. non. ngeen war a garder la distance ci kuréelu politique yi ne ci réew mi yëpp fu ñu mënti bokk. benn benn benn kuréeli politique du la wax ne ñun dañoo am ak moom ay accointance et ci rajo laa nekk dama leen di défier. xam nga ñun demoon nañ. F24 leen f ñun moom laa lay wax si ñun F24 lañ bokk man membre comité exécutif laa de fi tous les politiques yi ñu liggéeyandoo ci F24 ñu wax publiquement est-ce que ñun mën nañu wax ak ñoom loo xam ne dafa weesu lu dëgëral état de droit amul kenn ci ñoom du la ko wax bu amee permettre naa leen ñu wax ko. parce que ñun xam nañ ban jéego la ñu war a teg xam nañ suñuy limite fan la war a toll te xam nañ ne ñiñ àndal tey suba di régler na démocratie bi dëgër suba mën nañ jàkkaarlook ñoom loolu luñ bàyyee xel la parce que yëf yi noonu lay doxee. encore que dañ ci am ay exemple président Wade jaar na fi président Macky jaar na fi et def ñu convaincre ci ne. problème bi ñu am c'est un problème de système muy ay texte ñu war a changer donc ñun li ñuy ñaan président Macky am na réforme penaal bu fi nekkoon bu avancé woon temps président Abdoulaye mu fekk ko fi na ko delloo si mu génnee article cent trente neuf génnee yenn article cinquante cinq ba cent yu. code pénal bàyyi leen politique bi te recentré seen xeex. xale yi taalibe yi taxawal ci mbedd bi quatre heures du matin ñu xëy yor seen pot jigéen ñi ñuy tànc ci kër yi leen liggéey loolu leen teg métit yooyu yooyu dellu leen ci yooyu. te moytu politique da ngay wax da wax ñi yor état bi yor police gendarmerie ne leen. xale taalibe yooyu ak suñ mbedd yi nga xam. am ci benn gis-gis ak taxawaay yéen. ah, ah laisse-moi si tout le temps ñu ngi ciy wax xoola suñ rapport yi. mosuñ cee mosuñ cee ñàkk a wax tout le temps gën ngeen cee wax. tout le temps ñu ngi ciy wax. et yi nekk ci mbedd mi. ñu mettre leen à leur trousse pour mën leen a. jërëjëf Senghane Senghor ñaan nañ ko état bi. te di leen woon aussi ne. yéen jàmm. ubbi nañ suñuy buntu amuñ problème. pour discuter pour lu jëmale Sénégal kanam. je vous remercie. jërëjëf Aliouma jërëjëf Soxna Fati. j'opte pour l'espacement des naissances pour le meilleur.